ilimaan jëwriñ ya moo fa teewaloon njiitu réew mi nga xam ne jamono ji mu ngi def aj ci arabi Saoudite ci biir discours am nag jëwriñ bu njëkk bi daal nay wax ci li leen Macky Sall sant ngir ñu amal jongante présidentielle bu atub 2024 si jàmm ak salaam sant na gouvernement bi nañu fexe jël motuwaay yi ci war pour ñu mën ko def incha allah gouvernement baa ngi ciy liggéey fan yi di ñëw bu président ñëwee dinañ ko ko jébbal. Amadou Ba daal àddu itam ci li jëm ci wàllu karange gi bu sukkandikoo ci moom nag nguur gi xam na bu baax défi sécuritaire yi fi am waaye ne itam ñeneen ñi nga xam ne dañoo bëgg jugg ci réew mi bëgg a sopp sunu diine teg fi seeni ay idéologie yi nga xam ne ay violence kese lay jur muy sàkku ñaan ci kilifa diine yëpp ci kilifa aada yëpp mais képp ku bëgg jàmm ndax yàlla defal ñu jàmm dolli ñu ko saxal ko ci réew mi. imaam Alioune Badara Samb mi nga xam ne moom moo jiite julli gi eh, fii ci grande mosquée bu ndakaaru daal nay ñaanal kon eh, réew mi ngir jàmm gi mën a sax ndax nag eh, ci fan yi ñuy génn yëngu-yëngal yu metti amoon na fii ba mu am sax ay doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ si seen bakkan gannaaw daan mi nga xam ne daana na ñu ko kii di usmaan Sonko ci li jëm ci mbirum Sweet Beauté gaa calme bi revenir na waaye nag euh, sénégalais yu bëri daal ragal nañu manifestation yooyu euh, tàmbaliwaat gannaaw décision bi nga xam ne kon euh, chambre criminelle daal na koy fësal ni ki démb ñi ci bëri jàpp ne kon kii di maire bu Ziguinchor mun nañu ko jàpp saa ne